Euh, may fàttali aadama Fall donc projet bi c'est un processus dafa am fi mu jógee ak fi mu yegg mhm. parce que bu ñu yaakaar ni rek projet bi dañ ko war a pousser bind ko nii parce que da ngay dama lay delloo ci 2014 quand le président Ousmane Sonko commencé donc à lancer ce projet euh, bi mu koy def il a tenu un discours tey jii mën nañu wax ni le Sénégalais am na 2014 ba tey bi donc il a évolué sa mentalité a évolué li waral loolu parce que qu'il a beaucoup sensibilisé loolu le président Ousmane Sonko moo ko presque liggéey na ci lu man mën nañu wax ni tam aussi il a cultivé le patriotisme parce que inculqué na tey jii nit ñi euh, bëgg sa réew inculqué na nit ñi tey vraiment bëgg vraiment gëm sénégalais bi nga doon parce que changé na pratique yu bëri Euh, système aérial li ñu xamoon bu njëkk. Hmm. même la façon de faire de la politique les gens euh, sénégalais yi dañ doon toppee nit ñi les leaders parce qu'ils ont quelque chose mais tey le président Ousmane Sonko donc grâce à ses pratiques dañuy il a def na ba euh, de telle sorte que les sénégalais au ñuy topp alal dañuy topp projet et je pense que ñun projet moo ñi mën a yóbbu ci kanam léegi nag. damay jàpp ne procédure yooyu processus boobu mooy ñu indi. mooy doog a tàmbali discours mm-hmm. y a un comportement donc même buñ ko deful tey ci papier mais mën naa jàpp ni mu ngi ci jikko nit ñi mu ngi ci xelu nit ñi te loolu noonu ce fut un combat qui nous a amené jusqu'ici donc projet bi bu dëgguru loolu wala bu amuloon ay assises yu solide kon tey jii mën nañu jàpp ni kon bi yegg ci pouvoir léegi nag wax na fii ak 2025 incha allah il va mettre à contribution donc les sénégalais pour ñoom ñëpp di jàpp ci ci ci projet parce que waxoon na dañuy bëgg def la transparence et l'inclusion sociale mm-hmm. parce que lépp li ñuy def rek du ñuy nii bon ñu ñoo liggéey ba yegg ci nguur gi donc tout ñun ñoo war a def lépp déedéet donc ce projet là qui qui a été commencé depuis 2014 donc va être finalisé en 2027 mais en mettant en contribution toutes les compétences donc des Sénégalais Mm-hmm. man dama jàpp ni bu ñu defee loolu euh, incha allah rabbi réew mi dina ci gis si boppam.